waay féexal sa xol ah, original neexal bu te am na original pur jus de fruits ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam na nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy taw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn e. wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 ñoo ngi fi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi saison boo ñu doon waxal tey bilan tey bilan bu positif lay nekk jéego yi nga xamante ni tey gis ngeen ne tey làmb def na ko si saison bi tey sa bilan lan nekk bon bilan bi moom pour tirer ko day yomb lool mhm. mot positif dama xamul ba xam am na mot bu gën a kawe positif mhm. sinon doon naa ko utiliser mhm. euh, positif à tout point de vue euh, que ça soit si nombre de journées yi ñu tëgg que ça soit si événement yi ñu couvrir que ça soit si réforme yi ñu jël que ça soit si nature réforme yi ñu jël que ça soit si accompagnement état bi que ça soit vraiment euh, si si toutes les composantes de la lutte à degré bu mënti doon vraiment si côté yooyu yëpp bu ñuy natt di ko xayma euh, bilan bu très satisfaisant la ñuy def euh, œuvre boo gis mën na bañ a parfaite mm-hmm. waaye dans l'ensemble mën nañ wax avec certitude avec yaqin que bilan ren bi euh, dina jafe lool lool lool lool bilan xaw a nag moom wala xaw a méngu moom moom côté yëpp nag vraiment nombre de combat nombre de journée euh, journée yu neex nombre de mbër yi bëre qualité mbër yi euh, qualité affiche yi décision yi nga xam ni CNG jël na ko décision décisions très sages très courageuses vraiment yooyu yëpp daal boo ko boolee si pañe bi jàppal ni pañe bi ren euh, sakkanoon na. sakkanoon na loolu daal waaw. Ouzin sa bilan positif positif négatif wala. waaw sant yàlla bu baax. Mhm. sama bilan moom dañu naan bilan positif la. Mhm. parce que ngay commencé benn année. Mhm. muy deux mille vingt trois deux mille vingt quatre. nga am projet ne dama ko bëgg a créer benn projet. indi ko ci làmb. projet bi mooy dañu bëggoon tëgg trois cent lutteurs. bi ñeneen ñi def trois cent lutteurs. jaaxaloon ñu bari. ñu ne man noonu lu ñu koy bëree ma ne ko trois cent jours trois cent lutteurs quinze jours na la ñuy bëree hmm. mooy jour de mu nekk vingt lutteurs boo ko jëlee ci quinze jours mooy trois cent hmm. ñu bari na woon mënuñu ko hmm. xëy na sax xëy na dañoo jàpp ni bëgg nañ ko rek waaye nañ leen xool bu ñu commencé ñu xool ba xam li ñu wax dinañ ko def vraiment bi ñuy commencé ma ciy jaajëfal waa CNG de lutte ma ñëwee gis ak ki nga xamante ni mooy président Bira waxtaan ak moom ci projet bi lool na ma ne ma ni quinze jours ne moom lépp est-ce que dina mën a nekk samedi wala dimanche. Mm-hmm. ma xamal ko ne ko ni mercredi moo nekk suñu cible. Mm-hmm. vraiment mu nekk lu mu rafet lu xamal ma carrément que boo leen bindee demande adressé ko CNG de lutte mën nañu xool ci mercredi yi ngeen liggéey ko mais vraiment ma ciy kontaan ci moom. Mm-hmm. dañu ñu waxtaan ak moom ñu commencé. ñu commencé nag vraiment. fexe nañ ba lépp li nga xamante ni waxoon nañ ko mhm. ñi def nañ ko li ngeen mébétoon yëpp def ngeen ko waaw mooy commencé woon nañ ko le 28 octobre nañ ko commencé woon ci fils de Sadio ak Bougane vraiment mu commencé woon samedi nag bi ñu ñëwaatee fin bi ñu ñu tëjee ko ci Papa Balde ak ki nga xamante ni mooy Balañ bu ndaw mhm. yàlla dogal ñu tëgg 14 journée am benn journée boo xamante ni bi tet yi demee ba mu seere mu nekkoon le 24 juillet bi passé ñu jox ko suñu frère Badiane. Mm-hmm. ne ko comme ñi ngi tëgg te bëgg na tëgg te date yi seere na. ñu jox ko ko accompagner ko ne ko na ko tëgg. loolu moo complété suñu 15 journée mm-hmm. kon nga ne damay tëgg 15 journée yàlla mi dara tëwul may la ba nga def ko. Mm-hmm. sant yàlla sant yàlla la ñi leen si accompagner ba mu sotti nag. seen jeu de lutte. mooy ñoom tamit sant yàlla quoi. sant yàlla kontaan si ñoom bu baax a baax. di ñaan yàlla nag vraiment. di amaat yeneen. programme yoo xam te mi ngi ñëw ci saison bi di ñëw xool nan nañu mën ba lëkkaloo ba ànd ak gën sincère gën nekk gën a mm-hmm. ba lépp loo xamante ni amoon nañ ko ay amoon nañ ko ay manquement ci journée yi passé xëy na buy ñëwee yooyu dinañ ko mën a rectifier pour mu mën a jàll dinañ ko mën a rectifier pour mu mën a jàll jamaïcain sa bilan tey si saison bi certes am nga yoo tëgg mu réussir am na yoo tëgg mu jëwul am ndax ay blessure mbër waaye sa bilan tey si si làmb de manière générale waaw Boucar sama bilan positif laay ndax nag bi ma commencé tëgg làmb ba léegi. Hmm. su ma doon wax bilan bi gën a positif saison bi laay wax. Hmm. ndax yaa gën tëgg tamit. Hmm. journée yu bari. waaw def sax benn saison cinq journée trois quatre. amaana journée bi benn laa tëgg mu yegg. beneen bi yàlla ñëw ak ndogalam. waaye benn boobu ma tëgg mu yegg. yóbbaale na tey moo ëpp doole tey journée yu ma mos a tëgg yëpp ndax combat bi ma ubbee muy diggante rëg-rëg ak bombardier maa ngi tëgg la vingt ci 4 décembre bii ñu weesu. Mhm. mu nekk événement boo xam ne bi ñu ci duggee ñu bari dañ ñëwoon làmb ji. du neex waaw am. Mhm. te tamit événement bu toll noonu boobu moo première fois ndaw bu mel ni ñun wala ku tolloog ñun aas wala ku am at yu ñu am ci làmb di ko organiser ci làmb kon bu yàlla defee ñu tëgg ko ba mu yegg ci date biñ ko jàpp amul benn gàllankoor ñaari mbëri bëre ci jàmm mbëri ci bëree yëpp bëree ci jàmm daanante zéro violence kon loolu bilan bu positif munu weesu loolu mhm. waaw kon loolu mbégte la ci man ak bépp jeune boo xam ne mhm. yaa ngi ci réew mi di lu wala nga nekk ci làmb mhm. ñu jógee ci nag songaat beneen waroon ko tëjee suñu saison muy diggante Sarko ak Bébé Diène nekk ci dem ba dernier jour yàlla ñëw ndogalam Bébé Diène am blessure ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko wér ba mu wér ak jàmm ba continuer waat ay activité am ndax nag lamb ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. gis nañ aussi il paraît que aussi subir na opération ba daal moom mu ngi ci lu ko war. ndax hmm. loolu la sportif. Hmm. bu yàlla defee nga blessé. ngay faju ba jaral la nga annulé événement bi nga doon jëm da ngay dem jublu ci faj sa bopp. Hmm, ban mbëri bëri di nga gis ñu am blessure. di ko sooxaale dugal médical ba pare di ko sooxaale toog benn deux mois trois mois ñëwaat bëree dem ba lamb ji jege si waat gaañuwaat gën a lor promoteur bi. sportif professionnel warul doxee noonu nit boo gaañoo ñeme ko dem def li ci war li ci yoon wax nga def ko. Mhm. moo tax bi ñu gisee mu def opération am waaw am nañ ci mbégte. ci mhm. professionnalisme bu mu doxal. Mhm. waaye tamit am nañ ci ñeewantal. ak yërmande bu jëm ci moom. nag ñu xam nañ ne opération yombul. ci jeune encouragement bi mu am ba def ko moo na wane na ñeme na li muy def gëm na ko. ñu bari boo leen waxee waxee opération duñ ko bari na mbër yi bari tey ñu ngi am ay blessures yoo xam ne ñu ngi soox ak ay at. te warutoon demee noonu bu ñu leen dalee bu ñu demoon fekk ko tàggoo nañu ak ñoom waaye sooraale lu bari moo tax defuñ ko kon duñ def loolu ñaanal ko mu wér ak jàmm ci temps bi mu ko bëggee ñëw ñu continué événement bi ndax nag combat boo xam ne la askan wi ñoo koy xaar diggante Sarko ak Bébé Diène ñoom ñaar dafa am yu ñu war a lancer événement bi waaye Jam Production dafa am défi bi mu ci a lancer combat bu askan yëpp newoon mënul nekk ñoom ñaar waruñu bëree mu dem ba ci biir ñaari mbër yëpp ñëw raison ku ci nekk di wàcc sa combat pare pour lutter pare pour bëree Sarko di wàcc combat Bébé Diène di ko wàcc buñ demee ba ci cappaandaw li blessure am si ci côté Bébé Diène dañ koy ñaanal mu gaaw wér ñoom ñaar yëpp ñu ñëw remplir seen contrat. est-ce que souvent tey yéen promoteur du ngeen di mise rek si benn combat rek. Hmm. ndax comme yu mel nii di am tey man pour man tey gâché la tey nga tëgg ne bu toll noonu tey tëgg benn grand combat kese ku ne sax xam na ne jam souvent ay journée da koy passé ay combat yu neex nga xam ne même bu grand combat bi yàqoo ñaanuñu ko yàlla aussi journée bi dina mën a réussir mais pour man boo nee programme beneen journée frais yi dina gën a yokk est ce que souvent aussi loolu duñ doon duñ nekk pertement waaw non jam musul tëgg benn combat yaakaar ci grand combat bi day jël lu ma trois affiches bu baax boole leen ba nit ki lépp loo nekk lu nekk war nga ci gagner expérience mhm. te lu ñu naan mag bu lu mag def ba dee bu dekkee bàyyi hmm. man tëgg naa fi combat grand combat bi am blessure muy Gora Sock fis de Balla ma dem tëgg spécial kon événement bi ma gën a perte ci làmb ci boobu la hmm. te boo xoolee promoteur yi muy dal yëpp bu ñu la waxee dëgg képp kooku ku ko def amoo ci satisfaction bi nga bëggoon te nit nag lépp looy def ah doo ci gis sa bopp jërul nga koy def hmm. man baaba Jaxal ak Loosoo ñoo waroon a bëre spécial ñëpp xam nañ ne Baba Jaxal buy ñëw àdduna yëpp gis nañ ful bu muy drainer booy yi baaxañ ci internet moo rëg-rëg mhm. boo daj ne buy taw kenn du fobee te nit mun nga fas benn risque waaye jàkkaarloog trois risques wóoru waaw te jàppoon naa ne événement bi bu bu grand combat bi blessé trois risques yu wóor a nekkoon sama kanam te trois risques yëpp nag pour maîtriser yëpp du yomb moo tax ma annulé événement bi ba pare tey mention spéciale ku ci mel ni Aziz Ndiaye il faut ma citer ko ndax Sador ci sponsor yi la bokkoon tey euh, man ne di def communication ba grand combat bi yàqu moom en personne mu ne ma jërul ngay force di ko tëgg waaw ah, yéen sponsor yi nga xam ne seen xaalis say dugaloon ngeen sama effet mu ne loolu amul problème ndogalu yàlla la jëlal sa temps jàpp sa combat ci date bu baax organiser ko nga te yooyu ay qualité yoo xam ne la nit du jiital bëgg-bëggam ne ma li wax sama frère Baye laa lay wax Zador même bu la sponsorisé boo gisee beneen sponsor bu la jox xaalis bu ëpp lu ma la jox wala sax bu ko matul dalal kooku nga jox ko ay blouson fépp foo waroon a takk samay baas takk takk ko fa kon kooku day wane ne sponsorisé wu la pour intérêt rek wala dara waaw ndax nit nag liggéey loolu pour développement la pour jàppale la tamit sa sa carrière comprendre nga kon yooyu dafa am solo qualité yooyu il faut ñu koy leeral moo tax combat bi man li ma pousse ko jëru ma ci benn réccute dama xam ne ndogalul sunu borom moo ñëw ñaari mbëri mënoon nañu bëre leneen am bu ko yàlla dogale ma pousse événement bi ba décembre wàññiwuma dara dem nekk ci li ma war a nekk. looloo tax nga nga ne euh, wala looloo tax nga bëgg a bàyyi làmb ji bëgg a diriger li nga xam te moom moo di CNG da nga gis ne CNG bi seen liggéey dafa doyul da nga gis ne CNG bi day yàq làmb parce que ñu bëri loolu la ñuy wax voilà yow sa gis-gis tey si CNG parce que man li ma à chaque fois da mënuma concevoir CNG am lu mu def ci làmb depuis Alioune Sarr ba tey certes mënul ñàkk ay manquement mais changement boo jotee wala fin de jot rek dañuy dégg gars yi di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko wax euh, di ko jëmale si ñuy jiite CNG bi en tant que acteur u làmb tey loolu a wax ci loolu. waaw man nag ku nekk mun nga jël témoin ma loolu. waaw man bokkuma ci saar yooyu man du ma sëkk jëf. Mm-hmm. te nit ñi di laajee man du ma laajee noonu nit. Mm. bëgg dara du tax nga xalaat te tey bu CNG liggéeyutoon ci làmb ba làmb yàqu man soxlawu ma lu yàqu lu baaxul mm-hmm. doyoo ma ko dara. Mm-hmm. man damay ñëw fekk lu ñu defar ba mu am qualité. Mm-hmm. ma ne man lii laa bëgg. waaw man saaru nit ñooñu laa bokk. kon du ma ne CNG def fi dara CNG mention spéciale. mention spéciale sax yombul ndax lépp loo gis rek. dina am ay manquement ay manquement. waaye ñoom wax dëgg yàlla même bu fekkee manquement daloon am. saison bi moom sàpp lañ leen di wax. ndax gis nga liggéey bi ñu liggéey. ba fu may wax ak yow mercredi yëpp dañ leen tëgg li mhm. gëj lu raar ci làmb ñaata grand combat ñoo am ci moment boo xam ne li am ren il faut ñu def taxaw mille 2012 bi régime bi changé lamb melton noonu ndax ñëpp gis nañ ne bu làmb bu état changé rek lambu day sooxe mhm. ren état bu bees dafa ñëw làmb mhm. changé état changé làmb ji gën a dox combat yu mag yu am fii nii la cinq mais diggante Eumeu Sène Sa Thiès euh, nga gis ne bi mel ah? ay gat yu bari yoo xam ne nii. Mm, làmb ji Gris Bordeaux Ama Baldé Modou Lô Ama Baldé. Gris Bordeaux Ama Gris Ama de Guiers. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. Tapha Tine Balla Gaye Tapha Tine Franc Bombardier. Mm-hmm. Reug ah, Sarko ñaabu ndaw. ay journée yoo xam ne wax dëgg yàlla. Modou Lô Boy Niang. VIP yëpp a bëre. VIP yëpp bëree kenn somewul kon loolu buñ ne làmb doxul. ci ay caaxaan rek lañ ko teg. te buñ ne tamit CNC bi liggéeyul. dañ ko teg sunu nafsu bakkan mhm. waaye nag nit ku nekk am nga sañ-sañ ne ñii de ñu ngi doxal waaye mhm. man bu ma jëlee mu gën a dox mu gën a dox waaw comprendre mhm. ndax nag jamono ji àdduna bi dafa dañ fa branché ci ndaw ñi parce que ndaw ñi ñooy ëpp jot man tey ni ma mën a jël sama oto départ léegi nii ñu fëgg ma ma moom ba Tamba wala frontière Mali fu ma gëmmentoo wàccee sees bi per manse mi mënu <laughs> ndax asam moo tax président Birame mënu <laughs> ndax seen as moo tax ah. comprendre kon man foofu loolu bokk na ci lu tax may laaj euh, CNC balaa ñoo ñëw si say projet say ambition waaw président Meissa yaakaar naa dégg nga nga aussi euh, yenn communication yi ngay boo ko dégg tey en tant que acteur boo xamante ni tey sacrifier seen vie de famille sacrifier souvent seen vie professionnelle muy seen liggéey seen nit yu bëri ngeen di tey pour le bénéfice de la pour le bénéfice des amateurs et des acteurs de la loolu lan la lay def. waaw li ma mën a seede mooy li ma dékk tey si Jamaïcain mu wax ko nii bu ko ñi ñi bugg wala boog ñiñ koy bëggal nag vraiment bëri na ñoo xam ni bëgg nañ naam mais waxuñu seeni nit xëy na ñoo wax ñooñu seeni communication bu méngoo woon ak bi communication Jamaïcain def kenn du wax dara parce que da xam ni effectivement. ñëw nañ si milieu boo xam ne gis nañ ni mu ngi dox ñëw nañ si millier boo xam ne ñu ngi ko dénk ñu ngi waslu àq di def li ñu mën ak li ñu mënul pour que mu jëm kanam ñu teg si nag ni ñooñu li ñuy doxal doxal doxal ñoom jàpp nañ ni war nañoo mën a ñëw pour mu gën a doxaat loolu xel nangu na ko euh, gis-gis nangu na ko te ku mu mënti doon boo ko déggee di nga xam ni kii lii mu wax nii tegu ko si nafsu bakkanam waaye da ngay am jàqare soo déggee ñenn ñi di wax parce que simplement bëgg na wala seeni nit bëggal nañ leen poste président CNG ma jàpp ne nag bëggal leen poste CNG wala ñoom ñu bëgg poste CNG warul tax liggéey bu rafet bi am solo liggéey bu taaru bi na mu taaroo ñu daal di koy sànni si si si si àll bi vraiment loolu daal man lu ma métti lool lool lool la euh, ça m'amène à dire quelque chose li ma waxoon sànq rek euh, bu ñu lay dénk mbir dañ lay dénk mbir jox la ay mission ñu la sa mission mooy lii ak lii ak li ak lii ak lii li ma mën a xam seede ko mooy mission yañ ñu tegaloon euh, nañ ñu ko tegale woon noonu lañ tegoo si yoon bi wax naa ko léegi nag nee naa ko œuvre humaine parfaitul ñàkkul ni na mu tegoo si yoon bi war na mën a gën a teguwaat si yoon bi mais li ñu mën a seede waat ko xam ko mooy bu fukk mën nga jàpp ni neuf yi wala neuf yeeg lu teg yow yaa ngi si kaw yoon boobu muy nag lu xam dañ si féliciter le président Bira di si féliciter toute l'équipe du CNG di leen wax ni liggéey bi metti woon na lool taxoon na lool waaye objectif bi lenn kese la mooy à l'heure du bilan kenn du la ŋàññ à l'heure du bilan kilifa yi nga xam ne ñoo la wóolu ba dénk la ñu la ñu mën laa wax gongo ñu mën laa wax jaaraama donc man damay féliciter daal quelqu'un comme Jamaïcain euh, naam nee na bëgg na waaye li jiitu si waxam mooy dafa féliciter tagg liggéey bi CNG liggéey bu ko ñëpp defoon nag sincèrement ñun dañuy tëdd nelaw toog xaar kilifa bi. dafa même même même bu ñu ko joxee sax dina dina dina liggéey. non seulement non seulement dina liggéey. mais hmm. problème bi au delà dina liggéey dina xam ni ba muy ñëw fekk fi neex. Hmm. dina xam ba muy ñëw fekk ñoo xam ni def nañ seen képp lay kàttan à ce que liñ leen dégg ñu jaarale ko si yoon te looloo am solo. Hmm. mais vraiment taxaw si télé yi di xàññ di ŋàññ nit ñi. di wax wax ju ñaaw nit ñi. Mhm. Euh, parce que simplement da ngaa bëgg wala boog say nit dañ laa bëggal. Mhm. Euh, du yëfi ngoox du yëfi defe rafetul daal. rafetul daal euh, Ouzin yow de yaakaar naa ne mën nga mën a wax si bilan wu CNG liñ def. waaw liñ def day wax dëgg yàlla sant yàlla quoi beneen bi ci des mooy dañ leen di féliciter man damay féliciter Bira Sène équipe bi parce que. xëy na man ren laay door a ñëw ci làmb sax tëgg lu mat dix journée bañ naan quinze journée waaye dafa am lu bari loo xamante ni dama ko fekkee gis ko ba tax na dama leen wax mention spéciale di leen ñaanal yàlla parce que li tax dafa am promoteur yoo xamante ni maanaam bu doon bira seen combat yooyu du am. Hmm. bu doon bira. Hmm. combat yooyu du am. déedéet waay waaw parce que dama fekkee loo xamante ni lu ci bari maanaam dafay sauver ay journée xam nga tey boo amee benn président. Hmm. maanaam lii na la règlement bi jox. Mhm. lii na la lii na la article lii na la li nga xamante ni règlement bi tere lii na règlement bi nangu ci yow. Mhm. yow li nga xamante ni règlement bi lii na lay tere xëy na matalewoo ko nga jaaxle ba ñëw ci président boo ñëwee expliquer ko li nga xam mooy problème bi mu jël problème def ko problème bu boppam sauver journée bi kon loolu tey bu ko defee defaat ko. Mhm. ba man mii nga xamante ci samay 15 journée dal na ma ci yenn journée. yenn saa yi ma toog woo président Maïssa mii. woo ko kenn nekkul expliqué ko sama problème. Mhm. mu ne ma bàyyi dinaa gisanteeg bira dinaa ci waxtaan te bu boobaa dañuy taxaw sauver journée bi nga xamante ne plus de mhm. vingt mhm. ngi préparé wu pour préparé pour Faris. la xam nga loolu tey bu ko président defee ci li nga xamante ne fekkee naa ko. bon te bu ko neexoon du ko def mënu ma leen wax lu sant. beneen bi ci des mooy dama dama toog démb maa ngi ci benn émission. ñu ne bilan bi quatre vingt quatorze journée moo am. c'est la première ci làmb. quatre-vingt-quatorze journée yu am fii ci arène nationale mm-hmm. wala ci làmb maanaam lépp réussir lépp jàll mm-hmm. loolu maanaam li nga xamante ni mooy euh, président ak équipe am liggéey bu am solo bi ñuy liggéey ci làmb moo waral loolu beneen bi ci des ma di ko dégg mm-hmm. jam président jam mi ngi koy wax xëy na sax moom xaw na ma xaw na ma xaw na ma xaw na ma wàccee tuuti mais dama toog ci benn émission wala ma toog fu kenn nekkul ma ne man dama ruus nit la ma tax nga ruus ma ne ko man dama xam ne lu mel ni seen jeu de lutte ñu am bilan bu toll nii bi ñu dem lu mel ni roi des arènes c'est que ñaari yoon ci benn année amul benn VIP bu nga xam te ni def na année blanche lii bëree ci combat ne combat yi ndaw yi li ci ñi ci bëree ci année bi amul maanaam ñi nga xamante ne dañu cheme sax lu tuuti la tey ñu ne bilan bi mooy bilan bi gën a baax di CNG de lutte ba CNG de lutte ba joon yàlla tey ci li ma fekkee tey ay nit taxaw ne ñooñu dañ fiy jógee ñeneen ñëw waaye nag ki ñi nga doon wax jam da ci bokk mu wax loo xamante ni tey bu dee nga dégg fi mu waxee maanaam da ngay dégg li tax mu taxaw mooy dafa ne damay bu may jël damay jël lu baax may jël lu baax kon loolu am na ci droit waaye ñun buñ bu bu ma jege woon man ah. ma ne ko ñëwal nga jege ci ñu yor lu baax mu gën a baax ñëwal nga jege ñu yor lu baax nga jege leen mu gën a baax mu gën a baax président nekkul ne man sama gis-gis est-ce nekkul ne dagg yi rek a tax te nee naa dagg yi dagg yàgg na am tagg nañ fa ay mbër Modou Lo Balla Gaye keneen ak keneen mais dafa mel ne taggu Balla Gaye moo gën a fës moom la nit ñi gën a gën a communiquer moom la nit ñi gën a utiliser ak convocation bi nga xamante ne le CNG convoqué woon na ko fi euh, si ay propos yi mu jëmoon tey jëmale ko à l'endroit du CNG certes génne na def ay excuses waaye dafa mel dafa am ñu profité si occasion boobu noonu tey euh, euh, jël affaire bi def ko guerre personnelle loolu ñu mën a wax ci loolu. ko. Mhm. l'ingratitude ma doo wax sànq jamaïcain bëgg mm-hmm. fëtëy CNG mm-hmm. warul tax nga jël liggéey bu rafet bi CNG liggéey mm-hmm. nga sànni ko si poubelle ba waxal d'abord li CNG def ba pare ngay soog a afficher say ambition honnêtement ñiy wax ñëpp honnêtement amul kenn koo xam ni war nga mën a génne duut baaraam ni lii mooy problème réel bu tax sama nit wala boo ka ma koy bëggal ma bëggal ko pour mu doon président CNG. ingratitude kese la pour man. mooy sëq jëf. vraiment am na qualité yu fi nekk. liggéey bu am solo bu fi li CNG liggéey nit ñi waroon mën taxaw kañ ko war mën a taxaw wane ko wane ko ba ñëpp gis ko ñu koy jël bëgg ko suul. point par contre pour ñëw si dagg bi je demand demande ban discipline lañ nekk te amul ay sanctions. que ça soit des sanctions muy administratives. que ça soit muy sanction financière maa ngi dégg tey léegi ñu naan CNG dagg dégg euh, sanction yëpp dagg dagg dagg kese la déedéet CNG dafa graduer façon dagga mi mm-hmm. am na lu ñu tuddee avertissement avant avertissement sax ferm am na avertissement verbal maanaam boo defatee lii lii moo la si fekk mm-hmm. avant boobu dañuy woote des réunions de sécurité maanaam ñun ne buñ ne làmb ci suba la wala ginnaaw suba dañuy dajaloo si autour de la table sécurité ñëw CNG ñëw ménager bi ñëw mbër yi ñëw euh, fans club même mbër yi daan nañ leen invité CNG toog ñu fàttali ku si nekk mm. sa sañ-sañ mm. ku si nekk li nga xam ne bis ba bu ñëwee am nga mm. sañ-sañu def ko am nga sañ-sañu say prérogative ñu définir ko ba mu leer dinañ dem ba bindal la sax itinéraire bi nga xam ni boos bu la neexee moom ngay jël police accompagner la mm-hmm. yooyu yëpp pour que lépp jaay yoon police ni leen bu leen neexee tamit ngeen dugg par exemple bu dee vingt personnes lañ la may vingt personnes yi sax bu leen neexee ngeen si benn oto ñu escorter oto bi kanam escorter oto bi ginnaaw loo xam ni presque à part chef de l'état sax wala ministre sax mënu ko am police sacrifié wu ni leen boo leen paree ñun pare nañ pour mettre toutes ces dispositions si seen côté pour que ngeen jugee seen lieu de regroupement dans de bonnes condition déplacé wu dans de bonnes condition exci si stade bi dans de bonnes conditions ngeen dugg sans problème. Mhm. mais mënoo ko am. Mhm. à la place lañ lay am lan lañ lay am mayoon nga ma vingt vingt cinq laay dugal. Mhm. Euh, waxoon nga ma bu ma indi xale si stade bi ma indi xale bu ndaw. waxoon nga ma bu ma rendi si stade bi ma ñëw rendi waxoon nga ma ni bul xëpp sa morom gàllaaj ma ñëw xëpp ko gàllaaj. waxoon nga ma ni am nga cinq minutes de temps de préparation ma ñëw jël cinquante minutes waxoon nga ma et cetera et cetera mais yow ñu wax la loolu yëpp. yow consciemment nga taxaw jalgati ko ñun la boo jalgati boo si jalgati li li ñu tuddee les interdits am nga pénalité dix pour cent si sa reliquat nga xam ko sa ménager xam ko les organisateurs taxaw bis ba fàttali la ko rappeler la ko mais vraiment fa la fa la yem fa la fa la gunge mën a yem maintenant que def nga ko ba ñu dagg la boo wëlbatikoo jiiñ kala dagg yenn mooyi Euh, boo ko jiiñee yenn mooy yi euh, fa la tooñ tàmbalee. am na ñu jàpp ne et tooñ nag baaxul. am na ñu jàpp ne un million bi ñu tagg Balla Gaye ci côté tëb miir. Hmm. moo gën a andi coow li am na ñu jàpp ne. waaw damay laajte damay laajte damay laajte rek. Hmm. est-ce que bu ñu bàyyi woon arène bi ku nekk fu la neex jaar lan la arène bi du nuru. bu ñu bàyyi woon arène bi yow caméraman nga war taxaw filmer hmm. ñun la bu la neexee dem taxaw si digg géew ba fa arbitre bi di arbitré fan lay mujjee. ñu ni seetaankat bi tribune bi yéen a ko moom ñu bàyyi tribune bañ leen moom ñu dem beneen tribune fan la làmb ji di mujje mhm. ñu ni Balla Gaye yow yaa moom camp bi mu bàyyi camp boobu dem camp bële xeex ak nit mhm. leneen am fa gisuñu fi Papa Sow Siteu mhm. nënd laa la wax moo indi làmb ju yàqu nënd ci biir géew si biir géew alors que nënd ñëpp xam nañu utilité mais nënd boobu ak li muy am am solo yàq na làmb amateur ba perte promoteur ba perte. mbër sponsor ba perte ñeneen ak perte. image yu làmb am beneen image bu négatif tout le monde en a mu doon image bu vilain hmm. image boo xam ni dafay bokk ci li li yàq image yu làmb hmm. donc ñu ni tout ça maintenant dañ koy réglementer hmm. réglementer mooy lan ku nekk di nga am yoon bi ngay jaar ku nekk di nga am fi ngay jaar yoon yooyu yëpp nga tëb miir luñ lafa fa fekk nag ça fait partie des interdits. ay waay féexal sa xol ah original neexal bu te am na original pur jus de fruits. Sénégal café kan gi yegsi na fay facture moo ci ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy taw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest